macha allah le roi médecine traditionnelle du monde borom kun fa yakun ki yàlla jox kun fa yakun mi ngi noonu jinne yi moom la ñuy xool di daanu jinne yi moom la ñuy gis di daanu mi ngi noonu 70 millions la génne def ko ci askan bi ci weeru koor gi ñu ne tabaski bi mu jëlay xar jëlay jasneer lépp jox ko askan bi kooku mooy kan l'homme social mooy kan saw solution kooku mooy kan l'empereur kooku mooy kan saw solution les jeunes Mara le jantal Mara le multimilliardaire te Seydina Mohamed kooku mi ngi noonu jàmbaaru l'islam baa ngi noonu baaxkat baa ngi noonu suñu jàmbaar jaa ngi noonu nit ñëpp a ngi toog borom kër yaa ngi toog kilifa yaa ngi toog ñëpp ngi toog di la xaar ndax baaxkat bi di alalam di ko def ci ci nit yëkkati alalam di ko def ci askan bi bàkkati baa ngi noonu jàmbaaru Seydina Mohamed le multimilliardaire de Seydina Mohamed kooku mooy kan saw solution kooku mooy kan Thierno Moule Sow kun fa yakun jàmbaar jaa ngi noonu macha allah doomi ajaratu Mariama Camara donoy segolon donoy yoru tengala kuli tengala niima tengala baaxkat bi ki nga xam ne du lekk bàyyi kenn ki nga xam ne moo yor ay milliards di ko def ci askan bi te waroon koo dugal ci banque bi di ko denc waaye defu ko dara ñoru ko dul askan bi ba tax na mu jël ay nagam rey fas yéene nii terale ko askan bi kooku mooy jàmbaaru l'islam macha allah ajaratu Mariama Kamara mu sell bi mooy sa yaay Mamadou Alioune Sow mooy sa yaay tubaarikàlla macha allah nee naa xalif général de jinne naka sax a du ko jur de jéegu jël ci bii teg ci bële bële na ko rajax ragal du jur jéeg bu sell jigéen bu sell jigéen bu ba mooy jur xalif général de jinne la mara bien préparé sponsorisé par Allah protégé par Allah travail par Allah marché par Allah fait tout dans la vie par na loolu na a saw kun faya kun jàpp na Thierno Moule jaa ngi noonu. jërëjëf. jàmbaar jaa Ngoone Moulel Dia jërëjëf. sunu xol dafa seddati. ala Thierno lii nga def xol dafa sedd guy ala Thierno. ala Thierno xoolal rek jaami ni ñu toogee dina xaar. ala Thierno sa xol bi yërmande rek moo ci nekk. ala Thierno bëggoo kenn mer. alaaj corno nga baax yaatu lool ngay borom jinne yi nag waane alaaj corno yal na yàlla guddal sa fan amiin wax leen amin may dégg waaye ndax lii muy def nii nee nañ maaraa yi bëri nañ ci dëkk bi waane mbuus yi ku ko gis ku nu jox mbuus boo demee sa kër di nga xam ne jox na la mbuus bu am solo man bañ naa ko ba dama ne sànq nañ wàññiwaat mbuus yi ñu ne ma déet alaaj corno nee na mbuus yi dafa bëgg mbuus yi am solo kon fa tabaarakallaahu bu sunu yaay yi toogee nii allah corno teraanga gi ngay defal sunu yaay ju tedd ji moom nga bëgg ndeysaan di ko defal ci teraanga di ko defal sunu yaay yu tedd yi. kenn du Moustapha waaw kon Moustapha Moustapha ñëwal rek ndax yaay sunu kilifa kon Moustapha baal ma jox la rek nga dugal sëriñ bi incha allahu rabbi bisimilah alaaj Moustapha. le king of the king. Le king all the kings. king all jaa ngi noonu. Le king all the kings. jërëjëf. Euh, macha allah Moustapha. jërëjëf Modou Sow. jërëjëf Soxna Ngone. Hmm. alors xam ngeen ni mi ngi mi ngi guddi instant bi hmm. euh, nit ñi bëri nañ fi macha allah. Hmm. te bu ñu jógee ci lii également sëriñ bi xam ngeen ni euh, am na ñeneen ñu koy xaar. muy patient yi nga xam ni ñi ngi fi soo ba léegi kon sëriñ bi liggéey bu baree bari moo koy xaar kon defe naa ni jëmm ji dañ koy ñaanal euh, bàyyee ko ak yàlla suñu borom kon sëriñ bi ñu ngi lay ziyaaraat di la jox sa wàccuwaay lii nag balaa ñu ko tàmbali il faut ñu jox la kàddu gi euh, nga wax ci ba pare ñu dooroo commencé kon ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di waaw macha allah di sant yàlla bu baax. déglu tedd moom merci thank you sukran waaw macha allah ñoo ngi sant suñu borom bu baax a baax di julli ci yonente bi salaa salaam di sant yàlla bu baax ndax man suma dund sama lépp yàlla la man sama life yàlla la kon maa ngi sant suñu borom bu baax moo tax sa saa su ne may def signe bi allahu dama naan allahu ne yàlla kenn la loolu mooy sama signature macha allah saa su ne ma koy def allahu yàlla kenn la kon nag macha allah di sant borom bi ndax tey li ma ni ma mel tey borom bi la kon maa ngi koy sant bu baax a baax di gërëm yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin affaire yi pare na euh, ñaari nag yi defar nañ leen ba pare macha allah gis ngeen sama jàmbaar yi sama booy buuse yi nga xamante ne macha allah Jóob moo leen fi indi lépp lu fi xew li ñu fi war a def ci nag ak ci gileem ak ci ay xar yëpp. macha allah ñoom ñoo ñëw defar ko ay booy yi jàmbaar lañu macha allah ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm ñëpp nag sama équipe bi yëpp di sant borom bi bu baax a baax di julli ci yonente bi salaa salaam di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak yàlla nañ yàlla boole baal ñu tam xarit ci jàmm ñu fekkee ko ay déwéni déwén ci barke yonente bi salaa salaam kon nag su ko defee wax bi du bari Mor Sow wax bi du bari Moustapha ñu jébbal gars yi mbir mi guddi na te tàng na. suba mooy tam xarit bi ñu libéré gars yi bu ko defee na après ma gis samay gan ñi macha allah defe naa ne noonu lañ war a def waaw. waaw waaw leen lo waay. macha allah ah, allah gis ngeen suma jigéen a ngi fi ajaratu nday Cheikh. macha allah moo ngi toog noonu macha allah indi ay teranga indi terangam aussi. macha allah kon nag ñu tàmbali mbir yi rek bañ a jël temps ndax xaw na tàng tuuti ah du noonu. macha allah waaw kon ñu commencé waaw d'accord waaw maa ne kon nag mbir mi il faut ñu organiser ko mag ñi d'abord en priorité mag ñi d'abord xale yi nañu bàyyi mag ñi d'abord ñu libéré leen te ku ñu jox rek mun nga génn dem allah d'accord encore mi ngi noonu. le roi médecine traditionnelle mi ngi noonu. di yëkkati sachet yi. ba pare mu jiital ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay mag. mi ngi noonu. macha allah ñu di ko ñaanal noonu kon lii dafa am solo doyen mi ngi noonu gis nga mag ñi la jiital di leen jox ay mbuus mi ngi noonu ci loxoom bu tedd bi moom lay jëlee di ko joxee nit ñi waaw mu nga waaw macha allah patient yi buñ jëlee ba pare mun nañ dem toog xaar sëriñ bi hmm. waaye ñi nga xam duñ patient dañu jël si ndawal mun buñ jëlee rek mun nañu dem ndeysaan mi ngi noonu. amiin allah mi ngi noonu. di joxe ki nga xam ne moom mooy mbuusu ndawal nit ñaa ngi noonu mu njëkkee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ay mag ñi ngi noonu sama waa ji baaxkat baa ngi noonu maanaam ko ñi nga doon ci baax gi fekkoo leen fi ñi nga bokk ci mën a joxe teranga gi fekkoo leen fi ñi nga doon ci xam-xam gi fekkoo leen fi mi ngi noonu la solution te jin ceen mu le saw kum fa waaye gaa yaa ngi noonu jeex na da ngay adhéré ci association bi waaw waaw am na waaw ngeen seet ngeen seet le un peu plus âgés kon nag euh, mbokk yi nga xam ne ñoo ñëw fii ngeen ñaanal sëriñ bi bu baax a baax sëriñ bi kenn amul fayam lii mi ngi koy def ay ati at di jàppale waa Sénégal di jàppale àdduna euh, defe naa ni alaaji Ceexna Moule Sow lii muy def euh, royuwaay la mais njàngale la day njàngal waa jàngale waa àdduna képp koo xam ni mën nga dimbale sa prochain nga def ko ñu baree bari ñi ngi yor euh, lu dul jeex waaye defuñu ko moom mu mën a yor li mu yor ba pare macha allah di ci jàppale jaamu yàlla askan yi kon defe naa ne alaaji Thierno Moule Sow euh, kenn amul sa fay euh, dañu lay bàyyee ak yàlla suñu borom kon ba léegi yéen a ñuy suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ ak le xalif général l'empereur le bourreau des dëmb le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all the king di alaaji Thierno Moule Sow euh, kon yéen ñu ñuy suivre sur la TMS TV. waaw voilà merci merci donc euh, yéen ñuy suivre sur la TMS TV ñu ngi fi en direct au moment sëriñ bi di joxe maanaam ndawal li nga xam ne nii mu ngi ko jaglelee askan wi pour jàppale leen ci feetu Achoura bi muy tam xarit ñaari yëkk yu mag. moom la wàccee ñu def ko ay mbuus jërëjëf waaw d'abord les femmes on doon la priorité aux femmes s'il vous plaît on donne la priorité aux femmes s'il vous on donne la priorité d'abord aux waaw gis ngeen ko donc euh, ndeysaan mi ngi noonu ñu continuer rekk sëriñ bi ci boppam moom moo koy joxeel ci loxo boppam koy joxe ci loxoom ndax barke bi ci nekk nit ñi sàkku ci barke moo tax mu ne kenn du ko joxe man maa koy joxe suma bopp defe naa ne loolu tamit ay ngëneel la parce que mënoon na toog ci biir ne ku ñëw rek jox leen ko mu dem mbay daf ko yëkkati di ko joxe ci loxoom bu tedd bi waaw gis nga voilà c'est bon voilà nee na ko mun nga dem ku jox rek. après mun nga dem waaw te ñu waaw ku jël nag ndeysaan nga gis gërëm ko ñaanal ko waaw waa koñ bi ma ne ko ku rek ndeysaan yóbbante ay ngërëm ak ñaan ñaan nag moom du doy liñ naan ñaan jullit waaw amin yàlla na ko yàlla def tey occasion la aussi ñu ci bari dañ daan dégg sëriñ bi di ko gis en image sur la télévision c'est l'occasion ñu tegoog moom loxo et loolu c'est extrêmement important waaw voilà honneur aux dames. Ah, ñi am ngeen. am ngeen yéen. lee waaw amu ah ñoom amagul waaw nañ ñëw jël. voilà donc ça c'est Amina. Amina bu ngoone. Léa de la cellule de communication. merci encore. merci. Mm-hmm. d'avoir accompagné Ngoné. sur les plateaux de la TMS TV. bëggul kenn ñëw te amuloo moo tax mu ne ñi amul nañ ñëw. kenn du fi génn di mer doom ñëpp ngi ñaan ci suuf ñëpp ngi ñaan dama wax ne dama wax ne ngoone. ndeysaan xéwal la mi ngi noonu xéwal la fi yàllaa ji ceen mu la génnee ñaari yu baax yi di ko jox askan bi ci loxom bu tedd bi yàlla jaa ngi taw lii moo lay wane yàllaa ji ceen mu lay suñu waa ji borom faajuru naajuru kenn du yow l'homme social def ko lu baax ci mim réew moo fi teg tànk laa la wax ci barabu traditionnel moo fi teg tànk mooy sëriñ xale mooy sëriñ xaalis mooy sëriñ physique sëriñ doole sëriñ teg-teg sëriñ xam-xam macha allah le jantal Mara c'est le meilleur de sa génération kenn du moom bàyyi presse mu lee doomi ajaratu Mariama Kamara bi kon la reine madame Sow kenn du moom baaxkat bi a def lu baax di teral doomu aadama di teral ay employé teral na buur teral na baadoora sama waa ji lu mu romb te la Sow loo romb sa te seer la tubaarikàlla macha allah def ko te baax l'homme social ànd ceeg jigéenam ajaratu nday Seex Diallo bàjjenu prince Moulé ah chéli raareer madame Sow jéeg bu baax bi jéeg bu riis bi jéeg bu ci 21 karaay jéeg bi ci lengoy sama jéeg bi imaamalin laa ko tuddee xale rafet xale jongoma xale dox nànk xale wax nànk kenn du moom. nag euh, ñu ngi continuer toujours. Mhm. sëriñ baa ngi joxe. joxe yeneen parce que nag li ma wax sànq ne euh, liñ naan la manière de donner vaut mieux que ce que mënoon na ko yóbbante mais defu ko daf ne moom moo koy joxe ci loxoom tedd bi comme ça barke bi ci nekk ñu mun cee bénéficier waale moo tax bu taxaw nii di joxe di joxe ndimbal bi nga xam ne ñu ngi koy joxe yéen ngi ñuy suivre sur la TMS TV télé bi leeral lépp lu nëbbu woon te làmboog njëriñ. fi mu ne nii dara nëbbootul fi mu ne nii. à travers TMS lépp leer na nañ. ne mi di Banjul ki seet na la. dafa mel ne ci membre association bi laa gis. Marème laa gis noonu ak ay tamule ñoo ngi nii tamit ñoomi it ñëw. kon mi ngi noonu président Alseyni ngi noonu dolli waat mbuus yi ah? waaw. kon nag aca sëñ bi jege si wala soxna si. mi ngi noonu jege si. amin amin ñaan na. gis nga. waaw mare ma ngi noonu. doon taalibe bokk ci association bi tëmule. macha allah ñu ngi noonu. li dafa mel ni ay patient lañu. waaw ñii moom ay patient lañu. Ah, waaye sëñ bi moom ñëpp lay jox. yóbbaale sa mbuus lii neex na de. macha allah yaakaar naa jeex na tàkk. kon nag tout est bien qui finit bien. ñu jox sëriñ bi kàddu gi rek ginnaaw bi muy joxee ba pare. waaw macha allah defe naa ne ñi fi ñëwoon ñëpp jox nañ leen ñëpp jox nañ leen n'est-ce léegi nag dañuy xool li fi des ñu xool ñi ñi war a jox fii am na ñi ñu dindiloon ku mel ni ajaratu Mariama Kamara dindil nañ ko ku mel ni suma xarit Ibou Chini Laay macha allah ak ajaratu Ndey Cheikh. ak suma goro yi ak équipe bi aussi bu doyul ma jëndaat beneen nag pour équipe bi moo waaw waaw moo tax ma ne nañu yéegal nit ñi xam nga boo yégalee nit ñi di nga mun a canaliser ñëpp jox ñëpp su ko defee nag bu dee dafa am ñu des nga jënd beneen nag léegi-léegi ma yónni Jóob mu dem jëndaat beneen nag ñu rey ko ci guddi gi séddale équipe bi du loolu moo gën waaw moo tax ma ne nañu yéeg ci kaw ba jox ñëpp su ko defee nag après ñu xool bu dee équipe bi ñu jënd nag macha allah ñu ñu jox ñëpp am ñëpp laa bëgg ñu am macha allah. kon nag dégg ngeen le visionnaire le missionnaire le réactionnaire dégg ngeen ko l'homme d'une dimension sociale. kenn du moom alaaj Thierno Moule kenn mer l'homme au social nee na dinaa jox ñëpp tubarkalla su ma sama équipe bi desee bu subaa ma jënd ab yëkk waaye li yee neex waay ajoro lii de min min nga ko sa sa dëgg dëgg war naa ñoo gisee. nga ne lu mu def. kone Sénégal war naa ñoo gisee. te dëgg war naa ñoo gisee. sama xol sedd na. doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee. Mariama nee na xol sedd na. Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita. ndax lii nii moom la ñëpp léegi léegi waaw déggal loolu léegi léegi man dama yaakaaroon ne patients sax ñi mu demee sax am ngeen jom am ngeen fulam ngeen fayda waane ala coono leen lii lis nañ bu joxee sax ba mu ñun dañuy dellu jeexee takk équipe bi ma jëndal leen carte spéciale. xoolal xoolal lii ndax jaadu naa. xoolal xoolal lii ndax jaadu naa. jërëjëf. dama jékki-jékki sama bopp métti. looy métti sama tànk métti. destin yi métti xoolal xoolal lii ndax jaadu naa. nga jaale jaale métti métti nga bugg a wéru a wéru man mii maa bugg a wéru xool sedd na guy te loo da nga jaale jaale nga bugg a wéru waaw maa bugg a wéru man mii maa bugg a wéru te loo kon topp waaw xul topp ma ma yóbbu la ci doomu soxna Mariama Kamara Cerno mu leeso léegi léegi nga loo gis léegi léegi loo yëg inshallah nga am loo gis bu dëgg dëgg war naa ñoo gisee bu ne war naa ñoo gisee te dëgg dëgg war naa ñoo gisee gone Sénégal war naa ñoo doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khadim général Thierno Moule Sow Soundiata Keita

yey yey yey yey ala je suis guéri consulte-moi voyons je suis guéri dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg dëgg war naa gone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalim général Thierno Moule Sow Soundiata Keita alaaj Thierno yow rek laay seetaan aaye léegi léegi léegi léegi alaaj lu mu def xeeb na lu mu def rek da koy xem jërëjëf El Hadj Thierno yaa ngi jàngal àdduna bu baax a baax a baax yaa ngi jàngal àdduna bu baax a baax a baax jërëjëf day defal yaayam di ko defal xol bi di tooy bu alseeni yëkkatee mu xool pour moom ne loolu tuuti na mu ne ko ay ca te kat nee na jël na teraanga ji jox na yaayam waana nag ba léegi li muy def ma ngi koy xeeb jërëjëf El Hadj Thierno jëf jërëjëf jërëjëfati man ñaan yi nga ñaanal sama waajur yi rek ba nu génn ci réanimation génn ci urgence rek man jaral na ma lu ne wallaay sëriñ loolu la ma defal ñaan yi mu ñaanal samay waajur kii nekkoon réanimation génn ñu dugal ko pavillon spécial keneen ki nekkoon urgence ñu génnewaat ko yóbbu ko aéroport bii man tey ji lu mu guddi guddi fa lay ji lu mu guddi guddi aéroport boobu lay fanaane ji ndeysaan sama goro yi ah waa Sébi ndeysaan ci El Hadj kenn du mer de kenn du mer de wallaahi ndeysaan ah mi ngi jëm ci jigéenam nag ajarat ndey seex ndeysaan sànq ba léegi mi ngi wax ci yow wax ju rafet sànq ba léegi dañu toog mi ngi ñuy wax lu lay gën a mën a jàppee ndax nag nee na li nga koy defal lépp li nga jël keroog laa reen indi ko sa kër këram keroog loolu ko gën a rey ndax xam na ni laa reen du caaxaan waxi génn caaxaanee woo ko ne nag li nga ko defal noonu dafa rëy ci moom ba xamul lu mu lay tontu keroog ndax laa reen moom xam na ni boo ñëwoon yow rek doy na waaye nga jël la reen indil ko ko nee na moo tax xolam dafa sedd guy. guy jërëjëf ala Cerno jërëjëf ala Cerno ndeysaan laa ilaaha illallaah ajarat ndey seex lii xew fii bu ko fekke de luñ la defal mun a mun a doyul doolil la defal mun a doyul doolil ndeysaan ngoone la wax ci lii muy def moom mu ne lu ñu ko defal rek mu ne dollil macha allah noonu la mel dafa xër xol bi moo rëy macha allah lu mu def rek da koy xeeb bi ngi noonu defal muus ki nga xam ne mooy bàjjenu prince Moulé ajaratu ndey Seex Jàlloo ngi noonu di jigéenu sëñ bi mbuusam bu baax la ko defal. xam nga ni moom moo jëlal boppam mbuus bi <laughs> ajaratu ndey moo ko teel boppam de lool seeni def mu ne ko dollil macha allah. laa ilaaha illallah eh waaw kooku la bëgg damay teral ndax yow kooku daf may gis fu ma gis rek ma ne ko ah wala alaaj Cerno mu leen baa ngi ne mu ne sama xarit kooku c'est un frère de sang billaay li ma xam ne ma kooku c'est un frère de sang wallahi jërëjëf alaaj Cerno man loo ma mën a defal li nga ma ñaanal sama wayjur rek moo ma dàqal loo gis sama wayjur yi ma dékk téléphone nga wax li ngay wax ñaanal leen ñu xëy génn sama papa réanimation dugal ko pavillon spécial nga ma wax li may wax sama yaay nga ñaanal ko mu xëy génn urgence ala cor na urgence a métti ku fa génn soo amee sens lool yàlla rek a cay des jërëjëf ala cor na li nga ma defal moo ma dàqal loo gis. ndeysaan moom moom mbuus boobu ndeysaan oh. nee naa ko man loo ma mën a defal loo ma mën a defal sama woy jur yee nga ma ñaanalal ah alhamdulilah alhamdulilah ndeysaan xam naa ni maag yow bokk yoon ndax bu ma demee kër gi après léegi léegi foofu laa jëm sa koñ laa jëm côté boobu hôpital ba waaw ndeysaan waaw dama di maaboom ndax nag man li mu ñaanal samay wayjur rek jaral na ma lu ne samay wayjur li mu leen defal noonu rek jaral na ma lu ne vraiment dama kontaan kontaan naa trop trop trop trop sax dëgg neex yàlla dëgg neex yàlla ndeysaan ndeysaan alaaj Cerno ni nga ko defee nii bu ma demee noonu laa koy séddale ca kër ga lii dinaa ko yóbbu sama kër papa lii dinaa ko yóbbu kër ga kontaan naa trop ci ni nga ma defalee ni nga ma ko defalee nii kontaan naa ci trop lii nga ma jox nii wallaay ñaan bi nga ma ñaanal moo ma ko dàqal ala Cerno jërëjëf jërëjëf ala Cerno lii nga ma defal nii réy ni ci man torop ñaan yi rek doy na sama papa bi nga ñaanal mu génn réanimation rek doy na damaa jël téléphone dékk jërëjëf ala Cerno ala Cerno mu leen saw jërëjëf yàlla na yàlla gudd sa fan ngoone am doyen mi ngi noonu macha allah daal nañu séddale ndawal bi génnee ki nga xam ne mooy suñu bosu yaay ajaratu Mariama Kamara mu sell bi daal di génnee bosu ñi nga xam ne moom mooy gorom yi waajuru laaree ni madame Sow li war a jëm si bi xotaan daal di génneel ki nga xam ne moom mooy Mour Sow Maabo macha allah génneel ki nga xam ne mooy jigéenam di xaritam ajaratu nday Cheikh waaye tamit. génneel ki nga xam ne mooy Ibou Seyni Thiawlaay macha allah Alassane ak Seyni Ibou Seyni Thiawlaay di xaritam di wëllëreem gis nañ ko fii lu sëriñ bi xewle rek day ñëw participer gis nañ barki Demba Ndiaye bu suñu waajur bi génnee àdduna xalifa bi sëriñ bi dem fa taxaw fa taxawaay bu am solo macha allah mi ngi noonu kon nag waaye ndawal baa ngi noonu ñu ngi koy séddale di ko jox ñi nga xam ne ñoom ñooy wëllëreem ñi nga xam ne. ñooy jege waaleem macha allah di leen jox tamit seen wàll ci li nga xam ne mooy ndawal bi. kon dama jàpp bi nag ci boppam moom mooy superviser maanaam répartition bi mu xam waajuram. jigéenam ajaratu ndey Cheikh ay mbokkam personnel bi ci ñoom la nekk nit ñi vous nous suivez sur la TV Civi direct bokk mu jox leen paas xaalis bi moom laa ko dégg. jox leen ñu si nekk ñu teg ko ci biir kër gi. waaw moom la rek. léegi ñu ñu jox moom jox ñu leen jeex na ba pare. léegi ñi nga xamante ne dafa ñu leen ñu leen ñu jëndee nag ñu leen jox. am na lu gën a xool. ñu dem ñu dem itam jox leen ko. ah ah, ah génne nga ko garaawul jox. ñoom ñu libéré ñu ba pare après ñu war a def ñu xam ñan la bu defee jutaat beneen la ñu defar ko n'est-ce pas. loolu la waaw kon nag euh, ajaratu Ngoné ajaratu Ngoné dëgg war naa ñoo gisee euh, war naa ñoo gisee vraiment kontaan trop war naa ñoo war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita roi des Djinné aye jaale a maa bugg a wér man mii maa bugg a wér te loo da nga jaale jaale mu métti métti nga bugg a wér maa bugg a man mii maa bugg a wér te loo kon topp ma waaxul topp ma ma laa ci doomu soxna Mariama Kamara Cerno mu leesoo léegi léegi nga am loo gis léegi léegi nga am loo yëg incha allah nga am loo gis ku soobee rab nga am loo yëg dëgg dëgg war naa ñoo gisee ku ne Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg dëgg war naa ñoo gisee ku ne Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalil général Thierno Moule Sow Soundiata Keita ak seen wér naa es cay wér naa ana ren ci kam bu selli ana ren ci kam bu selli ana ren ci kam bu selli allahu akbar wér naa yeyeyeyeye ala yow béy daa yeyeyeyeye ala yow béy daa yeyeyeyeye

dey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita roi des jinne aye léegi dee